jëf mbokki euh, internet yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di euh, jëfal yi ñu ñuy teewloo ci seen bii di naraktu yi dal leen ak euh, jàmm mi ngi noonu moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye gannaaw ba nga xamee ne rek dal dinay sant gërëm askanu Sénégal wi nga xam ne rek ñoo daal di koy wóolu ba daal di koy fal teg ko ci boppu réew bu Sénégal lu ni mel nag moom Bassirou Diomaye fay daal di nay sant Sénégalais yi nga xam ne rek ñoo daal di koy wóolu ba vooteel ko teg ko ci boppu réew bi daal di nay xam ne rek jamono jëlee. toogaay amatul liggéey rek ndax bari na la nga xam ne jamono bi mi ngi leen di xaar fii ci réew bu Sénégal moom Bassirou Diomaye fay ak la nga xam ne rek daal dina koy fësal fii ci réew bu Sénégal li fi gën a jàmp ak la nga xam ne rek waras na see gaaw taxaw ngir nag daal di koy saafara ndax lu ni mel nag askan wi daal dinañu koy soxla lu ni mel moom Bassirou Diomaye Faye loolee la daal di fësal gannaaw loolee moom Bassirou Diomaye Faye sant gërëm sénégalais yëpp yi nga xam ne rek daal di koy wooteel wóolu ko ba teg ko ci bopp réew bu Sénégal moom Bassirou Diomaye fay daal di sant gërëm ca noonu fekk na askan wi moom ñu ngay bale bale googe nga xam ne moom Bassirou yoroon na ko fekk na askan wi tàmbali di bale mbedd yi nga xam ne rek jamono jile moom fa la war a daal di jaar ngir rek daal di doxal